général Moussa Fall Youssou Ndour Viviane Chidid Ousmane Sonko ak Sadio Mané ñeneen ak ñeneen yër leen yëglekaay bi l'observateur dellu siwaat ci ñagas-ñagas yi tàmbalee am ci diggante Barthélemy Dias ak Macky sàll yéenekaay bi ne audience nocturne yi ak coowal Ndiaga Diouf gàllankoor yi ñu nar a indi ci wàllu parrainage Khalifa Sall ak yeneen ak yeneen bokk na ci li nar a yàq boobee diggante Walf Quotidien di ko feelu ne jamono ji kay moom nag jàmm amatul ci diggante Macky Sall ak Khalifa Sall yër leen yëglekaay bi Amadou Ba mi ngi ci tànku Macky Sall yéenekaay quotidien moo xëy dellu siwaat ci li PS ak AFP nag daal di investir Amadou Ba ngir mu doon seen candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 waa parti socialiste ak waa AFP jël nañu seen drapeau jébbal ko Amadou Ba loolee la yëglekaay bii di Vox Populi daal di xëy fësal nag candidat bu benn Bokk Yaakaar boobee nag fas yéenee doxal ma ngay sànni ay doj nag ñi nga xamante ne nii nag dañoo samp seen nënd ngir bëgg a doon candidat ci élection présidentielle yi socialiste yi ña ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne roy moom dunduroog pire taxaw la héritage bu Senghor bu Diouf ak bu Tanor kii di Amadou Ba bés bi le jour daal di dellu siwaat nag ci congrès d'investiture bu Amadou Ba Aminata Mbengue Ndiaye dikkite ay kàddoom ci biir yëglekaay bi di xamle déggoo gi ñu am nag ci tànn gi ñu tànn Amadou Ba ngir mu doon seenub candidat Moustapha Niass bu alliance des forces de progrès di sàkku ci Amadou Ba bu faloo na jébbal AFP nag place bi mu yellool ci boobee jamono nag waa Alsar ñoom it ña di Amadou Ba bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di investissement bi ñu amal Ba ngir mu doon candidat bi teewal Artsakh ci élection présidentielle yu atum 2024 Mamadou Racine Sy li mu jàpp nag mooy gis-gis bi nga xam ne moo mën a suqali réewum Sénégal kenn mënu koo doxal ku dul Amadou Ba rawatina nag lu jëm ci programme yi nga xam ne moom président Macky Sall da ko fee taxawal Le Soleil yëglekaay jamono joojee nag daal di sëgg ci caution bi nga xam ne rek moom la ñuy dugal ngir mën a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 yéenekaay bi ne benn milliard yu toftal ñaar juróom-ñeent lu toll ci ñeent fukk ak ñett ci ay candidat candidat déposé nañu ko yër leen yëglekaay bi le quotidien yëglekaay dikk nag ci lim bu takku ci wàllu cocaïne bi nga xam ne rek tegate nañ ko loxo ci waaxu Sénégal ci diirub ñetti ayu bés rek juróom benn tonne cocaïne nag waa marine bi teg nañu ko loxo juróom ñaari membre yu bokk ci équipage boobee nag jamono ji ñu ngi ci loxol yoon enquête yëglekaay di ko feelu nag ne jamono ji kay moom mbirum trafic drogue moom mi ngi wullee ñaay fii ci réewu Sénégal ndax si alxames ji nag marine bi daal dinay teg loxo ñetti tonne cocaïne nag ci diirub ñaar fukki fan ginnaaw bi ñu tegee loxo cocaïne ci ndakaaru jamono ji nag ab marabu ab musicien akub snapper ñoom ñëpp nag ña nga ca loxoy takk der yi yéenekaay bi ne politiciens yi musiciens yi mannequin yi nag ñoom ñoo ëpp ci liy jëfandikoo loolee di bi lu jëm ci wàllum consommation bu cocaïne beeg drogue bi nag ma ngay jaaxal waa ONUDC ba tey ci lu soxal nag teg loxo bi ñu teg loxo cocaïne boobee nag ci waaxu Sénégal libération moom ma ngay xam ne ne koppar yi ñu ca dugal toll na ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay milliards yéenekaay bi ne bi la bateau jugee ca Guinée Bissau bëggoon koo yóbbu ca tugal ci la leen marin bi daal di teg loxo ñu àddu ci wàllu tàggat yaram ak réew mi sport mi àddu ci mercato bi mu ne nag waa bën lay tegal nañu kii di Pape Gueye offre bu am solo ci suñu làmb la ñu koy jeexalee ak combat bi dox démb ci diggante Zarko ak kii di Diène Kairé yéene kaay bi ne Zarko mujj naa daan Diène Kairé tribune yëglekaay di xam le ne Diène Kairé kay Zarko delloo na ko ca plaasam mbokk yi lee gën a fas yëglekaay jàmm ak jàmm société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue revue de presse